salaamualeykum wa rahmatullah asamadia ñoo ngi nuyoo baax di ziar sëñ Maxtaar Kebe ci jataay bi am solo bii lool waaye di sant sëriñ Abdou Khadir Mbàkke moom sëñ Abdou Samad ci xasiida gi mu jàng léegi wa innahu la kitaabun aziz xasiida gu neex waa xasiida gu yéeme mu bokk ci xasiida yi nga xam ne danañ ko fekk ci diwaanul quraaniya xasiid yi nga xam ne sëñ bi da leen a tënkee ay alquran xasiida gi sëñ baa ngi ko tënkee wa innahu la kitaabun aziz loolu nekk ci alquran inna alladina kafaro bi dikri lamma jaahum wa innahu la kitaabun aziz mi ngi noonu aaya boobu la ko sëñ bi tënkee wa innahu la kitaabun xasiis nga xam ne téere bu tedd la yàlla moo ko teral ndax waxi yàlla la yàlla moo ko wattu ci ay neen ak i caaxaan xam nga alxuraan sun borom da koy melal melal yu bari euh, ci biir téere bi léegi mu melal la ko euh, ne téere bu euh, tedd la téere bu barkeel la waaye fii nag dane wa innahu la kitaabun aziz xasiida sëñ bi way na ci ay xasit yu bari am na kum ci way gu tàmbalee wajjaxa rabbi li xayri man bi yataxallaqu adan yulaaqi axbiya boobu innahu la kitaabun aziz moom la am na bu ko sëñ bi tënkee bu tàmbalee wajjaxtu kulliya li rabbiyal ahad moom itam am na beneen boo xam ne sëñ bi daa da koo tënkee wa innahu la kitaabun aziz lahum maxfiratun warisun karim karim ak yeneen aaya moo tàmbalee wajjaxtu wàcc bi tilaawatil kitaab kon wa innahu la kitaabun aziz bii sëñ Abdou Khadir jàng nag moom sëñ bi mi ngi ko way ci ginnaaw géej gi li tax sëñ bi way ko mooy ak taxaddusu bi nixmati sant xéewal fukki bayit la ak ñeent sëñ bi mi ngi ko way ci bahru waaw ci bahru rajas bu xasiida gu neex la fukki bayit la ak ñeent tolloog tur yàlla bii di wahaabu le donateur mooy waa kon bi wala jawaadu ay limub bayitam noonu la toll sëñ bi nee na dafa am tarjumaan mi ngi tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim ko tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim tudd tudd yàlla mi rahmaan mi rahim ne yàlla yow yàlla yàlla nga julli te barkeel ci ki nga xam ne yaa wàcce ci moom téere bi nga xamee ne wax nga ci biir téere bi ne wa innahu la kitaabun aziz téere bu tedd la hmm, kooku nag nga xam ne moom ci nga wàcc téere boobu nga xam ne ci nga wax loolu mooy sunu sang mooy sunu kilifa Muhammad julli gi na law ba ci ay ñoñ ak saxaabaam na nga def xasiide gii nag nga xam ne euh, ci wa innahu la kitaabun xas laa ko defaree saadan la naa ilaa duyóori muy ab yóbbal ñeel ñu ba keroog ñuy dugg sunuy kër amin daan ne allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi wa taqabal hadihi abyaata min xayliha bi xadri azamat sadik amin ya rabbal alamin yow yàlla yàlla na nga julli sëlmal barkeel ci sunu sang sunu kilifa muhammad ak i ñoñam ak i sahabaam na nga nangu bayit yii e, ci ki ko wax ci kem sa màggaayu jëmm amin ya rabbal alamin kon xam nga sun borom nangu xasiida gi kem ni si sunu borom e, kem màggaayu jëmm ak sunu borom ji kon mooy nangu xasiida gi amul fu mu yem amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ndax màggaayu jëmmi suñu borom ji amul fu mu tàmbali amul fu mu yem kon na ko nangu ni sa jëmm toll ni sa màggaayu jëmm kon xasiida gu tedd la xasiida gu yéeme la sëñ bi nee na wajaxtu li man bil am nijaa bi mati mun jin man bi bihi laasa najaa sama lépp jëmale naa ko ci ki nga xam ne moo ñu indil kóolu téef jaare ko ci tagg nag aji mucc ji nga xam ne ku wéeru ci moom mucc maa ngi sant sama boroom maa ngi sant sama boroom ci yiw wi mu bette sama boroom mi nga xam ne moo ma jox li ma bëgg yëpp loolu ñëw sama boroom boo moomu nag baax na ahmadu rabbi ala xayrin faja ni'ma allati lii xaada suhliya faja yàlla mi karim di aji tedd yàlla moomu dàq na ñàkk ay xat xat ak tar-tar mooy alxaraj alxaraj mooy aldayq wa sidq wa siddatu yàlla mi aji tedd dàq na ay xat-xati tar-tar mu jëm ci geneen wet gul san wet te yàlla nag nekkal na ma te yàlla moomu baax na de te yàlla moomu dëggal na sama yaakaar nafal karimu an janabil xaraja wa kaana li nixma wa xaq xaraja daal ne yàlla faral na ma lor sama saa borom faral na ma lor mu génn ci man sun borom nag jox ma xéewal ba noppi wuñul ma njàqar yëpp nafa ilahiyal ata fa xaraja wa xaadalil muna wa an nii farraja huwa lazil bahrayni fadlan marraj huwa lazil bahrayni fadlan maraja yaltaqiyaani wa yasoonul buruja allahu akbar loolu li mooy marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barsaqun laa yab xiyaane aaye boobu de daanaka moom la sëñ bi indi ci bayit wi sëñ Tuubaa wax rek man toxu alquran la wala maf xoomu alquran sëñ Tuubaa lu mu wax man toxu la wala maf xoomu xadis waxam ak ay jëfam génnul ñaar yooyu mhm. mu ne yàlla moomu nag mooy ki nga xam ne huwa lazil bahrayni fallan maraja yaltaqiyaani loolu mooy marajal bahrayni yaltaqiyaani ngu sun borom wax ca suuratu rahmaan marajal bahrin yaltaqiyaani baynahuma barsaqun laa yabqiyaani boole ñaari géej géej gu neex ak géej gu naqari ñaari géej yooyu ñu jaxasoo te benn te benn uh, maam ñuy daje te benn du ca du ci du ca jaxasoo moroom ja am na lu dox seen diggante ku dem ndar loolu da ko fa gis géej gi mm, ak dex gi ni ñu duggantee nga gis ndox yi te benn euh, am na lu dox seen diggante ba benn du ci jaxasoog moroom moroom ji du ñu jaxasoo ak li ñuy daje daje yépp mm-hmm. nee na sëñ Tuubaa nee na loolu nag suñ borom moo ko def ci nga ne dem wax ju xóota xóota nag mm-hmm. moom wala sil ba bahri ne fadlan marja ma tax yaa ne nee na woyu sonul buru jaax moom it mooy aar al buruj tataay buruj dana firi al xisna mhm. buruj dana firi ah, al binaaw al ali al saaxi fi sama tabax yu kawe yu jëm ah, asamaan mhm. kon mooy aar mooy ñoŋal tataay rek lahu kitaabi wa lu jajaa lastu ulaaqiha waxoon sulu jajaa mhm. sama sama sama waqante nag ñeel na suñ borom waaw sun borom mi nga xam ne euh, fegal na ma àllu ji jaax mhm. lu jaj àllu jaj ndox mu bari lay doon mën naa am sëñ bi bëggee wax rek géej gi nga xam ne euh, bu ñuy wax lu jëtul baxari mooy géej goo xam ne duusi day toftaloo di dóorante te yàlla jox na ma burhaan jox na ma xujja ay lay ay preuve xujja mooy baat bi jamhu bi mooy xujaj karramani baaxin kafaani baxraja wala ulaaqi maradan aw xaraja yàlla teral na ma yàlla mi aji des fegal na ma al baxraj mhm. baxraj mooy lépp loo xam ne rek euh, baxraj mën naa firi al mustayaf mhm. teyit duma dajeek mukk feebar wala xaraj araj mooy dox doxin woo xam ni eh, jubul ngir feebar bu am ci lenn ci ñaari tànk yi mën naa firi doon mën naa doon mm, soox rek kon yàlla fegal na ma feebar feral na ma araj kon nag sël sëlmaluk suñ boroom yàlla na nekk ci aji bégalaa kon bii tey ajaram waa kon bii muy yonent bi sallallahu alayhi wa te yàlla moom moo jël gën gi mbaxana yi mbaxana yooyu solal ko ki nga xam ne mooy Bachir di Chafi maa ngi tagg gën gi weeruwaay ki ñu yaakaar ki nga xam ne moo ubbi euh, mboolem yiw yi ñu yaakaaroon usni ala xayri malaasin murtaja wa xayri fatihin la xayri taja bayit wi nag neex na lool badihu mathi badiu mathi li jamilin bahuja alayhi taslima kariman baxaja nee na sama fenti tagg eh, jëmale naa ko ci ku rafet ku taaru jullik sama borom mi aji tedd ak sëmalam na nekk ci moom gën gi julli ka nga xam ne moo leeral ngir ma yàlla na nekk ci kaw ka nga xam ne sóobu na gën gi gën gi ngir mi ala allati afdala nahji nahaja xayru salaamay man ada man manhaja nee na man de xanaa ay xasaayit ñeel ki nga xamee ne moomu wuññul wuññu bégle te leeral génn waay ba sintu xasaida li man xat farraja tafrija tafsirin ada al maxraja yow mi nga xam ne nag yaay dimbali képp ku wéeru ci yow na nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yaa man yuinu kulla man lakal tijaa salli ala musawjin xalin tijaa mu ne zaadi nag ilaa duuriya min ka xat fa jaa waji salaamayka liman bil am ni jaa kon samay yóbbal mm, jëm samay kër euh, ñëw na ci man kon sa sëlmal ak sa julli na nga ko jëmale ci ki nga xamee ne moom il al amnu te mooy am amnu gii nag al amnu gii sëñ bi di wax fii nit ki mi ngi koy amee ci alladina amanu walam yalbisu imaanu bi sulmin ulaika lahumul amnu am na googu bala nga ko am faw nga gëm yàlla ba gëm yàlla gu sëkk te du ànd ak dara ci bokkaal yàlla nga soog a am al amnu gii sëñ bi di wax allazina amanu walam yelbisu imaana bi sulmin ulaika lahumul amn kon da nga gis ne xasiida gi xasiida taxaddusu bi nixmati la sant xéewal euh, gi ko sun borom def ak cantuk xamdu cantuk delloo njikkal jaare ko ci wa amma bi nixmati rabbika fa xadis di sant xéewal yi ko sun borom defal di sant yiw yi ko bett di sant sunu borom mi nga xam ne moo ko jox li bëgg di sant del delloo njukkal sunu borom mi nga xam ne moo ko daqal xat-xat ba noppi nekkal ko ba noppi dëggal yaakaaram ba noppi faral ko lor wuññil ko ay njàqareem jox ko ay euh, xéewal fegal ko allu jëj ba noppi jox ko ay euh, jox ko ay preuve ay lay ba noppi teral ko ba noppi musal ko ci feebar ak doxin wu ñaaw ba noppi euh, loolu yëpp sëñ bi da koy wax ngir sant xéwal waaye da ngay gis xasida gi tamit sëñ bi di ci euh, jox ci suñu borom cër bu am solo lool ci di ko tagg ci di ko euh, wétal mm-hmm. wallatil bahrayni fadlan maraja yaltaqiyaani doy na ci sëkk gis nga mu indi ci baatub rabbiya baatub alkarim loolu ci turu sunu borom yi la bokk indi ci baatub euh, al moom itam ci turu sunu borom yi euh, la bokk ba tey indi ci euh, moom itam noonu ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa salama indi na ci turu yonent bi tur yu am solo indi na ci Bachir indi na ci Shafii mm-hmm. indi na ci Munji indi na ci aljamil yooyu yëpp ci turu yonent bi la indi na ci musawij yooyu yëpp ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa la ba noppi nag julli ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci fu fasantikoo ci xasida gi kon daal xasida gi mi ngi noonu xasida ak cant xéwal la euh, at taxaddusu bi ni'mati moom moom la sukkur goo xam ne at taxaddusu bi ni'mati la ak kañ yàlla ak bàkk yàlla ak wane mm, jëfi sunu borom yu xëriñ yooyu ak wane ne tamit ne day tagg yonent bi tagg yu taaru tagg yu rafet tagg yoo xam ne nii moom day doon yoo xam ne moo koy njëkk a fent mm-hmm. kon ak di kañ yàlla di ko tagg kon daal ci tënk xasida gi mi ngi noonu xasida gu neex la xasida gu yéeme la xasida goo xam ne suñ borom sëñ baa ngi ñaan suñ borom nangu ko kem ni màggaayu suñu borom toll màggaayu jëme suñu borom kem ni mu toll na suñu borom nangoo xasida gi noonu kon loolu lu rëy rëy la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.